Euh, ci kon nag mën nañu xaar euh, le le le douze bi aussi président euh, comme prérogative comme ni ñu ko ko yoon maye constitution maye mu tas assemblée nationale parce que yow yaa ngi sa ba léegi jàpp nga ne député yi yi toog assemblée nationale réew mi taxu na a jóg leen tax mu humilier Ousmane Sonko. oui cest à que <clears throat> dama jàpp ne bu président Diomaye jëlee décret. Mhm. di sut assemblée nationale au soir du 12 septembre ce n'est pas se dédire. Mhm. ce n'est pas se dédire. du bett kenn. ce n'est pas se dédire xam nga euh, je défie quiconque de me prouver que Ousmane Sonko a la loi un seul moment il n'a jamais violé la loi. il n'a pas respecté la constitution en tout cas. j'ai pas dit qu'il a mais il n'a pas respecté la constitution. ok. donc yow nee la constitution n'a pas fixé de date. Oui. Donc, donc il la respecte. Mais la jurisprudence. <laughs> non, ok, mais la, la doctrine, la, la jurisprudence, la coutume. la évoqué la constitution. La constitution n'a pas fixé de date. mais mais s'il vous plaît jant moo yor kàddu waaw bàyyi bàyyi leen ko mu yeggali ah. dafay dafay voilà ngeen ngeen baal ma Thiam Thiam s'il vous plaît bàyyi leen jant mu yeggali ah ñëwal jant. J'ai souffert quand les gens parlaient, mais <laughs> waxuma. bon, on va souffrir à notre tour. Vas-y, on va souffrir, il n'y a pas de souci. Hmm. J'ai dit. comme me prouve que Ousmane Sonko a une seule fois violé la loi au Sénégal. Mmh. Il s'agit pas de faire ce que les gens faisaient. Ousmane Sonko constitution bi il a été nommé premier ministre constitution bi ne ko da nga war a def déclaration de politique hmm. kañ la koy def constitution bi waxu ko. li koy wax mooy réglement intérieur constitution bi ñëpp la waxal. muy defee euh, déclaration de politique générale ñoom am nañu règlement intérieur. ñoom ñoo koy ne. Euh, ab sangam da nga war a def sa déclaration. de politique générale mm-hmm. donc bu dee règlement intérieur boobu reconnaître le premier ministre lu mu fay wuti. c'est sur du lu mu fay wuti. Mm-hmm. on se rappelle tous quand Mamadou Lamine Diallo député honorable député Mamadou Lamine Diallo disait à Amadou Ba. que tu as forcé les portes de l'Assemblée nationale parce que sa place nekku fi. ay on se est-ce que Ousmane Sonko va faire la même chose dem foo xam ne kenn xamu la donc si le, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne lui permet pas de venir présenter sa déclaration de politique générale te moom sur cette base-là il ne vient pas à l'Assemblée nationale il n'a pas violé la loi. Mm-hmm. c'est à l'Assemblée nationale se réajuster. ok l'Assemblée nationale s'est réajustée en disant que léegi booy ñëw da ma ko yëgal huit jours avant. Mhm. y a de stratégie politique huit jours avant mooy on a saisi l'Assemblée nationale le 4 septembre. Mhm. teg ci huit jours nga xool ban date la est-ce que c'est le 11. ce n'est pas, pas le 11 au plus tôt c'est le 12 septembre. Mhm. moo tax ñu fixé ko le 13. les autres points qui son inscrits à l'ordre du jour des députés yi am nañu occasion possibilité étudier leen laata ñuy wax ci de de mais est-ce que liggéey bi ñu leen sant am na sens bu fekkee dañuy dissoudre assemblée nationale aussi. mais c'est-à-dire xam nga euh, man je n'ai jamais perçu un mm-hmm. moment ni dans les propos ni dans les faits et gest du président jomaay que day tas assemblée nationale. te ba léegi nit ñi ñooy spéculer déggu leen bu Diomaye ne damay tas assemblée nationale. au contraire il a cherché à collaborer avec l'Assemblée nationale. ok ñëpp wax nañ fi ne DPG de de loi d'orientation budgétaire bi Assemblée nationale dàq na ko sur quelle base. sur quelle base. ok débat d'orientation budgétaire boo xam ne se inscrit dans la constitution constitution oui. ñu wut ne la da ngay def débat d'orientation budgétaire sur des enfantillages nga ne yow doo ko def. du fi amee. ndax Sonko daf leen offensé kan ma jaay doole. kan mooy def preuve de haine kuy def débat d'orientation budgétaire moo koy def ne du fi amee nga teg ko fan. 81 contre 80 Clédor l'a dit je suis d'accord il y a des gens qui disent non pourquoi Diomaye n'a pas négocié avec ces gens-là pour am sa majorité. Hmm. non ils ont refusé le vote secret. oui non seulement ils ont refusé le ah, vote secret non seulement ils ont refusé le vote secret. mais il a fait preuve de gentleman il considère que ñii ay xale nekkuñu fii ay mag magum jëmm ñoo fi nekk. Mhm. j'ai pas besoin de manœuvre politicienne. ok naa leen jëbbal affaire bi te ñu àtte euh, ci seen axulaay taala lan lañ dégg. Mhm. oui les arguments qu'ils ont avancés pour rejeter. Mmh. projet de loi. Mhm. lu tax président assemblée nationale di ko yëg en même temps que l'opinion ñu wax xamal leen ne loolu amul. dem nañu beneen ils ont même à la limite parlé de l'illégitimité de Diomaye parce que nee nañ sur 18 millions de Sénégalais y que 2 millions et quelques qui ont voté pour Diomaye. absolument 18 millions de Sénégalais ñoo war a voté pour mu nekk président de la République. il faut que les gens apprennent à être sérieux man nee naa la j'étais un partisan du maintien de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. pourquoi j'ai changé d'opinion c'est le comportement de l'Assemblée nationale. et si Diomaye c'est à cause du comportement de l'Assemblée nationale. wax. Mm-hmm. Oh. ok pas autre chose. ok donc tey jii il faut euh, euh, euh, euh, euh comment on appelle ça euh, il faut pas fragiliser les institutions. mais dans ces conditions la ne Ousmane Sonko demal nga def sa DPG c'est le fragiliser xam na lu ko fay xaar. Mm-hmm. il sait qu'il y a une motion de censure qui l'attend. motion de censure su peut être mais xanaa kay dafay tegu ci dara loolu la kële loolu ndox man bu may censurer sa émission bii dafa am lu tax ma. mais c'est pas parce que tu t'appelles Mass une émission que bu je dis je censure. Mm-hmm. avant l'émission est-ce que CNRA am na droit censurer sa émission bi di nii nii rek parce que c'est Mass Mboup. non absolument. amu il faut mu am loo def. Mm-hmm. yow premier ministre nee na ko ñëwal def DPG mu ne la bëgg naa ñëw def DPG mais seen règlement intérieur euh, reconnaître ko nga def règlement intérieur. yow nga dégg ministre de la justice ñëw ne rek on a promulgué la loi rek nga ñëw taxaw ne damay def motion de censure doo xaar DPG bi ñëw. Mm-hmm. même si on n'a pas dit il faut argumenter euh, la constitution et cetera mais man boo taxawee sa buntu kër yore paaka si sa ginnaaw ne ma ñëwal dugg ci biir kër gi du ma dugg. <laughs> doo dugg doy na waar. du ma dugg. Mm-hmm. donc ici yow DPG bii ñëw yow soxlawoo sax déglu DPG nga ne da ngay def motion de censure rien que pour daaneel nguur gi. Mhm. et c' nga ne nañ fa yónni Ousmane Sonko bu fa demul rek kon Diomaye c'est dédit il ne serait pas dédit. Mhm. bu xamee ne lii moo fay xaar premier ministre boo xam ne moom moo ko tànn ci euh, euh, euh, en toute sérénité du ko fay yóbbu ñu koy toroxal ba pare après mu ñëw ne ko koy reconduire. d'ailleurs des motions de censure tu fais tomber le gouvernement à la minute qui suit le premier ministre mu reconduire son gouvernement cest dire xam nga tey il faut que les gens soient d'accord sur une chose assemblée mënul téye président de la République waaye mën na ko tardeel ok rien que le fait nga daaneel nguur gi mu reconduiraat nguur gi tu as fait perdre du temps aux gens absolument nest pas yow on t'envoie une xam nga les Sénégalais aussi jant il joue le dernier carte aussi. waaw mais c'est-à-dire pourquoi ah, loolu mën nañu comprendre politiquement aussi jàpp nañ ne mais xam nga dama la jox exemple rek tey ma jox la exemple nga baal ma rek tey dama déglu assemblée nationale benn député muy wax mu ne président tey da ngeen ñu war a bàyyi ñu wax ba ba ba géex parce que mën na am suñu wax ji ñooy mu suñu mujj mujj mujjanteelu wax. mais ñoo ko yóbbee seen bopp. voilà ñoo ko xam nga je l'ai dit à un de tes confrères. quand il m'a dit. Hmm. oui mais assemblée bi nga xam ne moom moo fi nekkoon. Euh, voté le projet euh, la loi de la loi d'amnistie assemblée bi nga xam ne moom moo prolongé le mandat du président de la république pour mu toogaat fi ba le mois de décembre et cetera loolu ñu doyee assemblée nationale boobu. ma ne ko mais am na loo loo fàtte mu ne ma leen ma ne ko gis nga di nga am xale ci biir kër gi muy reewantu. parce que yaayam a ngi fi. <laughs> waaye bu yaay ji tukkee. dafay régler bi yaay ji dellu si. absolument ki doon tax ñuy ñuy reewantu mooy Macky Sall. Mm-hmm. booba dama jàppoon ne ñii dañuy changer comportement. ok. mais dañoo nekk ci jaamaarloo di defante ñun amuñu temps defante. ok ñun fu ñu leen doon xaar mooy ñu nekkal foofu askanu Sénégal luy intérêt askanu Sénégal ñu défendre ko parce que ces institutions là président Bassirou Diomaye on aurait compris. mais loolu contradiction la. non mais naka ngeen mën a xaare aussi euh, assemblée boo xamante ne loi yi ñu voté contre yéen ñëpp. ñu ngi ko fa voté ngeen di xaar ñooñu aussi euh, ñu indi ay actes républicains jàkkaarloog yéen. mais bu ñu ñëwee ñu ne dañuy tas assemblée nationale. Hmm. wala ñu ne léegi benn gouvernement benn moom gouvernement dina assemblée nationale ba keroog bu ñu koy tas gars yi dañuy naan dañuy vengeance la ñuy def. ok on reste républicain. on collabore entre l'exécutif et le législatif. Okay. tant que c'est possible. ok merci comprends nga. Mm donc lii euh, xam nga xam nga xam nga assemblée national bi. sénégalais yi ci seen bopp ñoo lay naan boo leen bëggee liggéey jëlee leen fi ñii. Hmm. yan ko. sénégalais yi dañ koy wax. yan sénégalais. ñu voteel Diomaye. les autres dis quoi. ñi voteel Diomaye <laughs> <laughs> ñu majorité bi. <laughs> xam nga l' assemblée nationale il a dit. wax sénégalais yi. il a dit mais sénégalais yi la. non la la la wax. Guinée Guinée yi lay wax. parti des sénégalais. en démocratie. oui la majorité. oui.

ñu woteel Diomaye mooy nekk majorité mooy montrer que le peuple sénégalais est pour Diomaye <laughs> ok n'est-ce pas assemblée bii juin juillet 2022 lañ ko voté lañ ko élire entre-temps la majorité a changé de camp ok donc aujourd'hui pourquoi les Sénégalais disent à Diop au président Diomaye si vous voulez travailler jëlee leen fi ñii c'est parce que la majorité a changé de camp. de camp ok te dañ ko war a xam moo tax. L'Assemblée nationale est légale et légitime, on n'en disconvient pas. Mais elle ne peut pas être plus légale et plus légitime que le président Bassirou Diomaye. ok mandat yi kenn mënu leen comparer président Bassirou Diomaye dañ ko élire pour cinq ans fii ak cinq ans dara mënu koo jëlee ci bopp réew mm-hmm. alors que l'Assemblée nationale boo fa defee deux ans mën fi jëlee. si c'était en début de législature. mais les gens ne sont pas tant que l'Assemblée nationale fait le travail pour lequel elle okay. est payée tous les mois mm -hmm. que ces députés-là font le travail pour lesquels pour lequel ils sont payés tous les mois mm -hmm. mais yow gisagoo premier ministre bu ñëwee fii dañ koy daggante <laughs> eh, fiiril ko <laughs> doy na ah. nest pas ma ñëw ci Jibril mais ah, loolu yëpp ça montre que mhm. véritablement ils sont ils sont dans un état d'esprit qui ne milite pas en faveur d'une sérénité des débats à l'Assemblée nationale. donc tant qu'il n'y a pas cette sérénité des débats à l'Assemblée nationale man du ma Ousmane Sonko du ma mhm. waaye bu ma ko doon xelal mooy que ni assemblée bi bu fa taxaw parce am na tànk bu ñu xaar boo fa demee. Mhm. au lieu ñu déglu yow idées yi nga xam ne moom ngay indi pour wan nañ leen fii lañ bëgg a yóbbee Sénégal ñoom dañuy nekk foofu di la euh, kekkantoo di la euh, jéem a humilier alors que. c'est pas les priorités yaa ngi ok c'est pas ça le jeu Djibril euh,